Boy fay solante nañu ñaari mbër yoo xam ne ñoo bokkoon fu ñu ne presque Boy Faye ca bàcc see eh, eh eh Boy Faye la ilaha illallah trois appuis général Malikan ca suuf général Mado daanu jóg na jóg na jóg na de eh général ak Boy Faye yëkkati Mado diis eh bii combat day metti caxabal day bañ caxabal général Boy Faye laa ilaha illallah général Boy Faye yàgg maar combat ngi eh fu mu jëm ak moom da koy na ko ndombo général ñàkk nga wër ndombo ruut ndombo mu ngay daw fu mu bëgg a dem ca biti Boy Faye ne na ko doo laa ilaha illallah warante nañu ndombo général mbaa fiñ la dugal baax na général mbaa fiñ la dugal baax na atte oh laa ilaha illallah nattante nañu de jaar nañ fu metti ñoom ñaar fa mu jàpp baax na de général la mu takk la booy fay jàpp boo xoolee eh, kii ci fàllaay ba da nekkoon moom général booy fay nekkoon jabaaj seeraas waaye léegi général ñibbi na dóor fa nga xam ne mooy Malika ga mu dëkk booy fay ñibbi parcelle unité trois ca dóor dóoraat di ànd ak Garga Mbossé Boy Faye général Malika général Malika doomu mu ndeyu Cissé ca Brésil la ilaha illallah bi combat barke rasulullah ndaw lu metti yàgg maar fu mu jëm moom lamp bee leen di contrer lumière bi mooy yàq noonu image yi ngeen baal ñu xam nga terrain bi reporter fi daa metti fu ngay tooge amul turbine loolu leer na nañ daw na jël ko mu bañ sa suuf eh général booy fay eh xale yaa ngay bëri gis nga mbëri simple yi pare la ñu def loolu ñu naan pare dañoo pare pare pare ba foo takk seenu pare weesu na ko Zé ak booy fay pare ba yegg ca loola la ñu def général booy fay copain may da koy daan yokku na ko mu bañ booy fay nag ni koy gis ni su bëre bi yàggee la nga gis ko mu commencé maye di def ay ouverture waaw da ko war yomb te général mi dee su may jaajëf mbër kooku ngóor ñaax la àndal maa ngi lay béggee ñu nga ca de da koo bëgg a génne botee fàq na ko ñu nga ca de parce que boo xoolee ñoom ñaari mbër yi ay mbër waada lañu seen combat mën ta yomb poulain Garga eh, dóor ko tànk daw na da booy fay wër nañ la ndombo booy fay mbaa duñ la daan ju ca nit ña waaye bii combat mi ti waay bii combat mi ti yàgg maar bii combat mi na de booy malika hop hop hop hop yàgg lii rek doy na combat lumière bi li muy yàq te amoo foo aw foo aw ñu ne leen fi àtte nañu miitaa xoolal ñaar ñi booy fay booy fay lu dëgëral ko wax wax na dëgg fi mu ne nii mën wax général la ngay sotte ko nangu wu ñoo wax ñoom ñaar a ngi taxaw eh yàgg bii combat dëgër na bii combat dëgër na këng mu ne fii dëgër na am dëgër dana ko sotte kool naanal yàgg maar mu ngay naan général di sotte ko ku nekk ak sab diilit fii dëgër na am deuxième souffle yi day ñëw amul problème maa ngi jog maa ngi jóg waaw maa ngi jóg amul solo général ak fay Faye général ak waay bii combat mitti waay yëkkati na ko eh mu bañ da koo bëgg a waay waay lii lan la nii c'est que fii itam général Malika Boy Faye Boy Faye takk na ko général bañ na général Boy Faye waaye bii komba dëgër na de est-ce dëgër na am door tànk mu bañ da koy daan de da koy daan daan na ko général Malika daan na ko laa ilaha illallah ba toog ci koom da koy daan de da koy daan daan na ko général Malika daan na ko laa ilaha illallah ba toog ci koom daan ba toog ci koom daan ba war sa kaw daan ba toog sa kaw général daan na ko ba toog kawam mu ngoo nguy ñëw yàgg maar la daan ba toog ci kawam daan ba war sa kaw daan ba toog sa kaw général daan na ko ba toog kawam mu ngoo nguy ñëw yàgg maar laa ilaha illallah wa mbalka ci loo ne no ay eh. mais c'est da nga mer xanaa waaw xam nga rek gaar yoo ñëw fee dal sama cumukaay jaxa sama gaañ ma xam nga te loolu moo mën a ñàkk man sama cumukaay mi ngi woon fële si ginnaaw comprendre nga ñu ñëw tamit di arrangé waat gars yi ñëw naan ñu kaay bëre di ñu waaxu loolu moo mën a ñàkk ak mbër yi ñàkk fayra yi seen moroom yi nekk fii di bëre ñu ñëw fii di yëngal bay yàq làmb yi ñoom ñëpp ay tapet lañ ñooñu ñana jigéen lañ ñoom ñëpp waay. waay bul wax waay non la nekk fi di bëri ñu ñëw fii di yëngal bay yàq làmb ji nii loolu dafa ñaaw. yooyu moo rafetul bu ñu bëggee yëngal nañ ñëw tax ngeen fii seen morom yi ñu yëngal. wala boog wala fa gor fi ay nekkuñ fi. góor yàlla ay góor yàlla lañ. kon duñ ñëw fi yëngal ñu bàyyi ba làmb ji saa ñu ñëw fii di yëngal bay yàq làmb ji quoi. c'est mer na de taalibe Cheikh Ablaye Diop xaas bi daa mer de loo ci mën a dégg mer na. Mbalka ana waa fa. ñu ngi si jàmm. waaw waaw. yaram bi daa tàng tey de. waaw dafa tàng. lu ko tàngal. lu ko tàngal. waaw. lamb ji. waaw waaw. mais lu tax ñu këj laa gis nga wàcc ci géew bi. nooy foog ma wàcc. waaw. parce que sama rak ñooy bëre. ndeysaan. ñoom Ousmane. ñoom Mame Diegane. ñoom Sadio. waaw waaw. ndeysaan mais xam nga ne waa lamb ji na mën nañ liwi coor. waaw lamb du caaxaan. man maa koy wax. war na yàlla. lamba. ci deret la nekk. nag ya. barke yàlla. amul mbër bu temps ma nag. amu fi. mbalka maak. déedéet amul. ñaata nag nga ko compter. jarga laa. jarga. waaw. waaw waaw. waaw ma jarga. waaw sant naa yàlla ci làmb. sant waaw. di ñaanal booy rek. ñu def li ma def ci làmb. non garaawul ñoo far xaalis rek boo bëggee ma jox la ko boo bëggee ma jox la ko